télé bi bégal sama askan Ladoum TV Ladoum TV mu nekk honneur vraiment bi ñu ko namee remplacer Dame Sow di profité occasion aussi pour nuyu Dame Sow nga xam ne liggéey bi liggéey ci élevage xam nañ ko bu ñu ko remplacer mën naa ni première fois mooy bu set may may président loolu aussi je pense que je pense que loolu aussi du hasard yàllaa ko def di nuyu aussi vraiment ñu ngi nuyu aussi représentant monsieur le maire Ahmed Aïdara di nuyu honorable député Ramatoulaye di nuyu aussi maire di nuyu aussi représentant président finance Abou Kane président Renades Djibril Wade Aram aussi je pense que par Omar Cissé ñu nuyu aussi vraiment tous les présidents d'association ici présents di nuyu vraiment tous les invités di nuyu réseaux sociaux di nuyu ñëpp en tout cas di kontaan te xam ne am na na koo xam ne mooy wax tur bi Sidi Bara président deuxième vice président bi dinaa wax rek que ni lii bu agsee fii yi ñoo ko waral waaw ñun nag aussi association bu agsee agsi fii dafa am ci ci li ñuy wax daal le naa ni le bas peuple wala en tout cas le moyen ñi nga xam ne dañ bàyyi woon pour compte ñoom lañ dañuy ñëw mooy ñi nga xam ne employé yi sang xar yi di toppatoo xar yi ñun ci ñëw foofu lañ foofu lañ investir chaque année dañ leen publiquement devant la télévision de Sibi ñoom dem nañ ba mu jaagalee ñoom ñoo nekk patron seen patron sax da gis bëgg a dem beneen fois sax sa sa moo naan la du ma dem foofu sëb laay dem am na koo xam ne ren ma docteur aw ma place mais su ma ñëw suma employé ne damay day day bàyyi gétt bi nee soo ko joxul place day démissionné kon finalement léegi dem na ba employé yooyu ñoo nekk patron patron yi moo tax léegi sëb bu wootee day facile ñu ñooñu aussi vraiment gis nañ seen bopp ci association bi ñu jàppale ñu sponsors yi aussi ñu ñëw am fu ñu leen foo xam ne amuñu ko fenn mais nag dans si naa ñun bi ñu ñëwee dañoo gis ne léegi sponsor parrainage catégorie baax na mais sponsors yi dañ si war a gis seen bopp ñun chaque année ñun ñun chaque année catégorie yi fi jàll au lieu ñu ko jox ay doomu aadama baax na mais sponsors yi nga xam ñoo si mën a gis seen bopp nañ leen ko jox su ko defee ñoom nag xaalis bi ñuy jox xaalis bi ñu am sponsor yi di ko am ci ticket yi ticket d'entrée yi di ko am ci exposants yi nañ si jël nag vraiment mel ni retourné delloo leen ko ñu njukkalee ko Sénégal kon élément yoo xamal ne xamal ne concours ren bi euh, danaa nekk cinq cent mille par catégorie ñaari catégorie nekk un million mais ren dañoo yokk catégorie mu au lieu au lieu nekk cinq cinq xar la ñuy décorer te aussi am na catégorie bu bees bu ñu créé muy muy plus beau plus belle ce qui fait que actuellement bu ñu calculé ñun li ñuy joxe sponsor bi NMA wala Grand Moulin ci deux catégories danañu dikk 1 million 700 parce que trophée bi 5 trophée benn bu nekk 25000 pour 40 xar dafa am gis nañ ko 300000 la. dossard bi 12000 francs pour également 40 xar bi ñu ko xoolee yëpp dikk na ak dañ ko dañ ko jox benn enveloppe de 1 million 300 ñu jukkale leen ko pour ñu jox ko exposant yi xar yi gagné en attendant ñoom ñuy association bu def loolu nag foog nga am sponsor moo tax ñoom ñun ak famille lañ suñu wootee suñuy foire duñ fa dem sax duñ dem que ñoom ci biir lañ bokk dañuy ñëw ñu ko toog di leen xaar ba nag damaa bëgg nag nga def jox ñu 10 millions nag parce que li nga am fii nag amoo ko fenn nag donc xamal naa xamal na si ñaari catégorie 1 million 700 dañu ko génne jeg teglee ko def ko grand moulin ganaas bi nga xam ne moo yor catégorie annuelle valeur 850 000 dañu def dañ ko jox ci xaalis ak dosaar yeeg comprendre nga léegi su ko defee léegi aussi am na nag institution yoo xam ne ku mel ni ay Finanfo Renades Adam ñooñu ñun dañ leen di wan ni leen bu leen joxee dërëm parce que yéen dañu dañoo war a si occasion la yéen suñu patron yéen pour promouvoir l'élevage kon da ngeen fi am cër Djibril Wade moo nekk ren moom lañu pare ne catégorie annuelle dama ne ko nag un franc soxlawuñu ko li si war yëpp set mooy jël ci ci xaalis cotisation yi exposants yi jël ci sponsors yi joxe joxe la yow parce que yow amuloo du ngeen ay sponsor bon raare noonu la doxee moom bi ñu ko defee eram noonu lay def ñun association bi noonu la ne nag say say sponsor la nga leen defal kenn du ko am xale yi yor xar yi la nga leen defal kenn ko am réseaux sociaux ko am famille la fii am na ñoo xam ne tey ba ba ba ci biir foire fii ñu ngi topp ay 50 ay 10 000 15 000 ci 150 000 la ñu waroon joxe alors que am na kilifa yoo xam ñu ngi soxla deuxième troisième box 400 000 ñëwuñu kilifa yi électronique yëpp ne deux te am na ñoo xam ne seen 150 bi ba ci biir ñu ngi leen dàqante ñoom pour ñu mottali ko am na si ñoo xam ne exposé nañ ren il y a 3 ans la ñu avancé woon 25 bi l'année passée 50 bi ba tey la ñuy xaar famille boobu nag day yomb loolu foofu laa bëggoon expliqué yem xam naa du ma madame vraiment la maire dégg naa sa wax aussi vraiment ñu si xam mais xam na ñun ñi am nañ benn assemblée bi wax tranche ñu dëkk golf googu képp kuy képp kuy éleveur sepp bu dee maamoon nga boo dee cotisé huit mille francs par que sa ñooñu nga administré association bi ñu leen yoo xam ne a développer seen seen i seen seen i seen i kii machine aram bi par exemple ki ko liggéey Ousmane Kane sa sa sa commune la dëkk Adam moo ko jox xaalis yu bari mu liggéey leen seen seen seen machine donc pour tuddee ko association bi ñu ngi créé emploi année bii par exemple war nañoo décorer ay sànkatu xar war nañoo décorer am na ko xam ne ñu ngi def manucure pédicure ñu koy wax Ousmane Ndiaye def na dégg naa ba jënd kër jàmm la gën dugal dugal papaam ñu koy wax Ousmane Korn. Ous Korn Ous Korn. kooku xam nga kon pour répondre ak say wax rek xam ni kon association bi tax ba kooku doon dagg korn bi ba jënd xar di dagg ay weer rek dem ba jënd papaam kër kooku ñu def dara Ibrahima boobu dañ ko décorer buum lay jaay buumu xar yi moom tam dem na ba moo yor këram yor ay ay yëpp ba ci xar la ko yore ku ñuy wax aussi Birane Gueye dañ ko décoré mi ngi jógee ñi nga gis ñii ñu otes ñëpp ay sponsor lañ comme NMA bi doole yo doolu rek bi ñëwee dañ leen wax ne yéen box mbaam gàtt noo jur di la bokk dafa ay box yu ñaak fere 50 mille nañu participé ñu ne ñoom dañoo otes ñun ñooy ñëpp ñu sponsor yëpp am ñu ñun ñëpp ñu stand la yor sponsor lañu vraiment ñii c'est revanche c'est waaye bu ñu lay concurrence mais donc excusez donc donc pour vous association bi donc mi ngi créé emploi te oto yi yëpp dañu fay ñëw jóge Touba am na ko mi ngi jaay tey mbégte bi anam saint jógee ba fii di jaay tey mbégte di si wut alalam ma nga ne toog di jégalu aussi nag euh, borom xarit nag ñu ngi may ñu ngi may mere ci dara nee nañ nee nañ xarit kenn kenn leen dañ fi ñëw 4 heures de matin maa sa mbub bi sama taw fàtt yëpp dafay ñëw loo ñëw da ngay fekk ñëpp tëddi nelaw parce que lu ko waral mooy bi ñu def tirage box yi ñun dañoo am démocrate la ñuy doxee femme koo xam dafa jël jël parole ni président mënu maa mënu ma dem mënu dañ am kaas ñun bu ñu demee foire fi ñuy def xare la ñuy bàyyi ay 1 mètre 50 fa la fanaan muy magasin ma ne ko loolu jeex na fii lañ ko climatiser depuis foire ba tey ñun fi la fanaan ba 11h mais nga fi ñëw sax bi fekk du yeewu borom xar yi nag nee nañ loolu moom maa ngi leen ah, fii nag di ngeen fa amoo ci ay xar day jafe kon nag comme ñoom dañuy yor xar pendant 12 mois bu faar bu jotetee wut leen nit ngeen fay mu yor leen seen xar ñoom fii la fanaan guddi gi ci clim bi bu ñu xëyee soo ko liggéey kon nag xam naa daal vraiment wax ji xaw na gudd booru mën a jël parole donc vraiment dama kontaan rek di remercier ñëpp seeb moom seeb nag lii man jàpp naan du mérite sens la du suñu liggéey defuñu fi lu tax ñu am lii lu tax boo wootee pare am nañ 70 personnes yoo xam ne ñu ngi man dama ñëw sa nit woon ma carte am ni man xanaa nekkatuma membre sama ma sama carte am nekkatuma foire mënoo mënoo romb fi am nañ 271 box mënoo ko romb loolu liggéey sens bu suñu liggéey donc suñu mérite sens yàlla def la ak ay ay ñaanu mag association dafa am ay association bi gën a bari ay mag Sénégal mag yoo xam ne dañu leen taf ñu jox leen cër seb la actuellement nii euh, am na siège siège bi am pour vous dire ñun ñun avant ñuy faral di passé 15 millions lañu daal di génne jënd siège am na fit na année bii dama ne léegi man cotisation yi ma gars yi jox ay deux cent mille cent cinquante mille yi du pour faire dama dañoo génne cinq millions cinq cent cinquante génn yi yemuñ ci ma ne Ndemba Fall wutal ma plan su may paree damay damay damay dalee siège bi bu yow bu amul bu amul xaalis sax génn suñu poste Ndemba Fall démb la ma indi euh, plan bi fay naa ko soixante mille démb au lieu xaar ñu pare foire sax Pape Gueye mi ngi nee na ma Ndemba Fall commencé teg ay poto sax mu xaaruñ ci xaalisam kon kuy faar na xalaat xalaat loolu nag xam nga doo si kon moo tax actuellement seet loolu mooy dem ne ko ndemba mu ne na sëb xam na ne sëb bu ñu foiree munu munu ñëw foire a dajale ba mën ab yoo xam ne dañ koy investir l'année passée dajale nañ 18 millions ci lañ def siège bi nañ jënd nañ jënd nañ machine électronique actuellement ña ngay da ña ngay yëkkati ay ay pour pour dalee ko def bureau ci kaw ak salle de bain jënd nañu ay ordinateur yëpp bureau bi nekk ñoo ko jënd suñu ordinateur ñoo ko moom concept noonu lay liggéeyee donc c'était normal ma expliqué fi ñu aw fi ñu xam ne c'est pas de hasard léegi nag di jéggalu nag maa ngi baalu ñu ma jiite ndax day metti ku ne xam ne sama cabinet boo fa ñëwee xaru trois biir laa fa ku ne xam ne ci ci ci tooñ ñëpp may kal lañ day ma la mën tooñ mais bu faa nga xasee commencé moom xuloo xeer laay nekk ak ak lu ko waral mooy résultat yi dama leen woo ko rek réunion man leen est-ce que xam nga Demba Fall ngay commencé di liggéey ci xaalisam te ñun la kon nag gestion bu grave man ay ay ay ay kii man engagé wu ay justification papier justification engagé wu ma man résultat la fa te lépp looy def looy looy wut fële man maa ngi ci kaw di la di laaj di la laaj di la laaj muy demee am nañ fi waxaare nañ fi ngooñ xam ne suñu bureau bi lañ nekk ba jubóo prix bu baax 1 million 500 4 millions nangam euh, ñu gis 4 millions 750 francs mooy di franc dama ko dama romp contrat boobu jël loolu pour gagner loolu kooku kooku ñu waxaale ko la waxaale ne ko ba juboo ci ma ñaata xaw ma 1500 ba juboo ba nga xam ne man man du ñàkk mënoon si am sa 25000 am ma waxaale ba gis 1400 ma calculé ñu am 100000 nañu kat lii lii kat kon maa di xeex mais xam nañ ne man intérêt bi moo tax affaire bi moo tax jóg kon noonu moom ñuy metti pour wuti ren ji ren soxla wa def naa ay conditions yoo xam dem nañ bu ñu ñu continuer liggéey bu añ jotee sax ñu añ yi ñu leen teg mais taxu bi de dañuy dem añ seen kër continuer liggéey ma laaj ñu ne ma nii ak nii xam ne li ñu wax dëgg la ma ma fekk si leen ñu commencé ñu commencé jàmm ama mais teewul pour vous dire xam ne dañuy bokk dañuy nekk di na na déedéet déedéet du président boo xam lu ko neex mu def si liggéey ni trésorier bi trésorier bi pour ñu pour ñu génn ci moom bu jafe la parce que xam nañ loolu mooy liggéey man maay man maay ordonnateur de dépense waaye moom mooy trésorier su ma ko demandé loo xam ne yéenu na droit bañ man naa def bilan tey tey tey fi ma toog fi ma toll nii fi ma toll nii mën naa def bilan mën nañ ni kat ni cotisation yi dugg ci cotisation actuellement mi ngi ci 46 millions xam nañ ko tey mën nañ ni par exemple également investissement fii la toll actuellement léegi bu ñu xaar nag li ñu jaay tigi tey suba ak li ñu jaay tigi suba su ko defee nag li ma joxoon la passé bilan bi mi ngi ci machine bi ku ko soxla ordinateur bureau bi bilan baa ngi foofu ku dem du nga xam bilan fi mu toll actuellement nii léegi nag dans une semaine indi leen ma rapport bu nekk leen bi topp ñu def assemblée générale jàpp nañ date du du 17 mai au au au 27 mai 2025 yàlla ñu fekk jàmm dal ko aussi une prochaine fois léegi nag Mamadou Touré bi nekkoon trésorier adam liggéey lu nekk adam

soo des paree pare kay a jox enveloppe bu ñu bàlle waaye nag suñu paree nag ñoom dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo aw dañoo def loo xam ne vraiment ah si baa doon tudd fi amee nii ma ko tudd loolu moom di tax tudduma moo tax tudduma leen ku ne xam ne ni ñoom ñaar Khadim Thiam mi li mu jógee ci élevage anam bi mu commencé ba tey set bi mu commencé moo ñu doon may dox première édition deuxième édition gratuitement Birane liggéey bu nekk ñu ne duñ ko parrainé ku ne xam ne ne xaalis taxul ñu koy bien que ne def nañ ëpp nag loo xam ne yenn suñu mais taxul ñuy euh, ñu fekkee am nañ jàpp moom moo turee yàlla nañ ko fekkee déwén ñu teg ñu waat bi nii donc c'est du 17 mai au 27 mai 15 jours après Korité su ko defee léegi ñun kuy xëccoo def ñun fekk ñun suñu borom suñu nit porte na place ba flyers dañ ko joxoon résultat may télé bi bégal sama askan Ladoum TV, c'est Ladoum TV